asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay tey nag mooy épisode numéro une bi nga xam ni fas yéene naa def ay vidéo ci élection législative yi pour wax lu tax ñu war a voteel Ousmane Sonko lu tax Ousmane Sonko war a am plus de quatre-vingt-dix-neuf maanaam une majorité qualifiée ñuy tàmbali nag tey ci épisode numéro une bi ci pôle urbain ñaajo pôle urbain jam ñaajo situé à 30 kilomètres à l'est de Dakar ci axe Dakar Thiès Mbour mu nekkoon projet bi waroon def une nouvelle ville pour désengorger Dakar de ses 1,278 millions d'habitants mais également Thiès ak Mbour de plus de 700 hectares pour accueillir le pôle urbain de Diamniadio mu nekkoon l'un des plus grands projets phares du plan Sénégal émergent avec plus de 1100 milliards de francs CFA pour créer benn pôle urbain moderne bi nga xam ni dafa waroon a attirer ay investisseurs internationaux jox ndaw yi liggéey permettre sénégalais yi am fu ñu dëkk ndax ci biir pôle urbain bi amoon na ci benn programme de cent mille logements sociaux bien sur le papier ndax tey Diamniadio n'est qu'un rêve brisé une ville fantôme projet bi nga xam ni moo waroon incarner l'émergence s'est transformé en un gouffre financier enrichir l'ancien régime et ses alliés ñu luubal nag alal ju bëree bëri bàyyi ñekk ay bâtiment yu vide yu yeggul ay tali yu yeggul ay chantier yu taxaw mais teewul milliards yi moom naaw na ak ñoom ñu def nag benn enquête exclusive doxantu fële ci jam ñaajo ngeen gis nag exclusivement ay image Diamniadio immeuble yi bâtiment yi oto yi nga xam ne tey jii dañ ko sànni depuis des années ay ñax finalement ñoo ko mujjee lekk ci mille cent milliards yi nga xam ne état du Sénégal moom la mobiliser pour taxawal le pôle urbain Diamniadio sur le papier ak ci côté koom d'ailleurs la cour des comptes siwal na ci rapport bi mu publier bu concerne période 2017 à 2020 ci présidence su Macky Sall bi nga xam ni la cour des comptes a révélé ay détournements ak ay défaillances yu jéggi dayo ci gestion wu pôle urbain de Diamniadio plus de 36,3 milliards de francs CFA la ay entreprises privées yi xam ni ñoo doon liggéey ak état bi lépp xaalis bu takku en hypothéquant des terrain ou des bâtiments yi nga xam ni ci jam naajo bi la bokkoon maanaam jël ay titres foncier état du Sénégal dem yóbbu ko ci banque lépp ci xaalis bu takkoo takku takku takku ne dañuy tabax ay cité ne dañuy tabax ay bâtiments mais finalement xaalis bi li ci gën a bëri dañ ko damm ci seen poche mujj ñoo bàyyi nag ay bâtiments ay machines yu vide sans suivre les règles légales muy signifier que entreprise yi dañoo utiliser ay biens publics ci projet jam ñaajo comme garantie pour am ay milliards te milliards yooyu duggul ci ville de Diamniadio mais à des fins privées en conséquence naturellement il manque de l'argent pour yeggali projet yi et cela a créé des gros problèmes financiers moo waral nag chantier yi lu ci gën a bëri ñoo ngi ci état d'arrêt lii nag Cour des comptes moo ko révélé li gën a garaaw bi ma doxantoo fële ca Diamniadio lu néew ci ay ouvriers sénégalais laa fa gis mais ñi ci gën a bëri ci ouvriers yi ma fa fekk c'est des ouvrier étrangers jot naa nag laaj sénégalais yu néew yi ma fa fekk yi doon liggéey ci chantier yi lan moo waral chantier yi nga xam ne tey jii ay nit ñoo ngi fay liggéey jëluñ ci ay sénégalais yi nga xam ne tey jii ñoo ngi chômé ñu ci jël ay étrangers lu ci gën a bëri. salaamaaleykum na ngeen def foo leen jëm nii. oto oto bi ma xaw a xat quoi mais lu dafa am lu ma bëggoon laajte dama gis ci chantier pël Fuuta xaw fee bari quoi pël Fuuta yi may laaj Sénégalais yu tax jëloo leen wala ay pël Fuuta ngeen mais pourquoi kon ñuy jël euh, pël Fuuta lu tax ji xaw fee bëri ah. man maa ngi ci internet boo leen tapee Djibril Gueye da ngeen koy gis Djibril Gueye dama ñëwoon jam ñaajo ak sama kamera doon filmer si. waaw baal ma wax ci kaw rek filmer filmer wu ma sa kanam de. kon bu fii waaw. ñoom loo leen fay ñoom dañuy liggéey. waaw par rapport ak ñun. leen di fay. li moo gën a moins cher. inspection du travail du ñëw du donc ça veut dire que autorités yi. dañu war a ñëw fii inspecter. fii waaw dañoo war a ñëw fii. waaw ñu jël sénégalais yi ñuy liggéey. man waaw. ñu contrat bi la waaw dernier que ay pël fuute yi. Mhm. ñoo ko ah. fi nekk loo liggéey ñoom loo liggéey. ok mais problème bi mooy inspection du travail du ñu wàcc sur le terrain. inspection du travail waaw c'est pas normal. il faut gars di wàcc sur le terrain. waaw loolu mooy loolu problème mais loolu si waaw foofu allah merci beaucoup gars yi bu ma résumé tuuti xaalis bi xaaj bi kenn xamul fu mu jaar beneen xaaj bi ci des ñu ngi ci jéem a rapistole ay immeuble yu yeggul waaye nag au lieu que ay sénégalais dem di fa liggéey dañuy jël lu ci gën a bëri ay étranger ñuy ñëw Sénégal ñu leen di liggéeyloo pendant que sénégalais yi di chômer lii nag mooy constat bi nga xam ni fekk naa ko fa te vidéo bi wan leen ko donc de yi se sont accumulés aggravant l'échec du projet sur les cent quarante milliards prévus pour l'aménagement ci ay infrastructures seulement trente neuf milliards seulement la ñu dugal ci projet bi diggante 2017 ak 2019 mooy malheureusement boo leen taalee seen oto jël autoroute à bi li ngeen di gis ci kaw tali bi cent un milliards yi des ci xaalis bi fan la dugg xool leen gare TER bi tabax nañ ko mais xool leen environnement bi ay tali yu yeggul àll bu ne gàññ ay nag man laa fa gis au lieu ay nit exemple projet bi waroon jeex ci douze mois tey sur le papier ñu waroon ñëw fekk fi ay pont yu pare des tali goudronné ay nit yu ñëw dëkk finalement xool leen bu baax suuf su xonk lañ fiy gis àll bu ne gaañ ak ay nag yu lekk au lieu de ay nit et pourtant premier ministre Ousmane Sonko ci point de presse bi mu doon def le 26 septembre 2024. moo tax ñi nga xam ne nag ñooy ndeyu mbill gi ndax temps yële génne nañu livre blanc. defe naa ñun suñu génnee livre noir très très noir lay doon waaye ñi nga xam ne ñooy ndeyu mbill gi ñoom nañu génn tontu bu dee li ñu wax amut ndax lii def nañ ko ba mu pare ñu partagé ko ak suñuy partenaire Fonds monétaire international jot na ci Banque mondiale jot na ci lañu ñu war a def def nañ ko te lu di mën a vérifier la bi mu doon wax lu jëm ci mbirum ancien régime bi nga xam ne dañoo endetté Sénégal fii rek mille cent milliards lépp nañ ko jam ñaajo nekk un gouffre financier pour le Sénégal bor yi ñu ameel ko ay bailleurs ay banque internationale bor bi kan moo ko nar a fay ndax bailleurs yi duñu ko baal sénégalais yi tey ñoo war a fay le prix de cette mauvaise gestion teg ci war a investiraat xaalis bu bëree bëri pour yeggali infrastructure yi nga xam ni pareegul des milliards gaspillés incha allah le 17 novembre 2024 élection législative yi nag nara a un moment crucial pour le Sénégal le président du PASTEF Ousmane Sonko a besoin de 99 députés ou plus à l'Assemblée nationale pour mener à bien les réformes nécessaires ndax ñi def ñaawteef fii kenn du leen bàyyi ak Assemblée nationale ñu fay am doole pour out immunité parlementaire pourquoi plus de 99 députés avec 99 députés ou plus Ousmane Sonko dafay am lu ñuy wax la majorité qualifiée et non majorité absolue ak majorité qualifiée dina permettre ñu mën a voter des lois de rupture réformer la gestion des fonds publics et mettre fin au scandale comme celui de Diamniadio ndax yii loi jàll dafay soxla trois cinquièmes de députés maanaam quatre-vingt-dix-neuf te loolu la ñuy woowee une majorité qualifiée ndax yenn ci loi yi yi nga xam ne mooy mën a permettre état du Sénégal réformer yenn institution yi wala doxal yenn loi organique yi nga xam ne ñoo war a réformer sunu institution rationaliser les dépense de l'État dafay laaj ñu am une majorité qualifiée maanaam trois de député députés car opposition bi ngir faqastal Ousmane Sonko jaral na leen ñoom ñuy doon xeex depuis douze ans ñuy ànd tey pour lépp rek faagaagal jéem a faqastal liggéey bu rafet bi nga xam ni depuis le 23 mars 2024 avec 54 virgule 28 pour cent président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko premier ministre ñoo ngi tëddal liggéey bu am solo ci réew mi tey jii loolu du ñu nangu ku ñu ko yàkkal looloo tax pour garantir la stabilité législative nécessaire pour réformer système bi démanteler les réseaux de corruption et garantir la transparence soxla nañu sénégalais yi ñu ànd massivement doole laat Ousmane Sonko avec plus de quatre-vingt-dix-neuf man sax dama naan cent cinquante députés bu ko defee nag assemblée nationale ñu am fa taxawaay bu baax servir askan wi nekkal fi askan wi pour une souveraineté nationale di leen gërëm di leen sant mu nekkoon nag épisode numéro une ci vidéo yi nga xam ni fas yéene naa ko def fii ak élection législative yi di yegg si mu mu nekk vingt 21 épisode boo xam ni ci fànn bu nekk rek dinaa fa dugg def ay taxaw seetlu wax lu tax ñu war a voteel Ousmane Sonko yenn yi nekk ci ay réalisation yi nga xam ni diggante le 2 avril bi nga xam ni formé nañ la gouvernement un de Ousmane Sonko ba tey jii réalisation yi nga xam ne taxawal nañ ko également aussi tamit wane li nga xam ne ancien régime bi ñoo ngi ko doon liggéey te tey jii ñooy ëlbatikuwaat pour ñu voter leen ñu dugg assemblée nationale pour wut fa immunité parlementaire loolu kese moo tax ñu bëgg doon député parce que yàgg nañu sol malaanu député bi te amalu ñu benn njëriñ assemblée nationale moo tax nag may def vidéo yi pour sensibiliser bii nag mooy video une comme ni mu ko waxee di leen gërëm di leen sant Djibril Gueye président du mouvement Sénégal dignité pour tous coalition Diomaye président mooy voté la liste Pastef du président Ousmane Sonko kon boog di leen joxaat di daje ci beneen vidéo incha allah semaine prochaine.